sama frère yi fi nekk yëpp rawatina sama ñaari frère yi nga xamante ni euh, mooy Pape Kama ak Samba Diak parce que ku nekk moom ku ku nekk xam na maag Samba Diak ñu mel ma yaroo seen kër ñu bokk néeg dund lu ne daan bokk ma nekk maag moom ay frère lañ ay seex lañ léegi nag ñu bokk gis-gis ci dëkk bi maanaam bu ñu nee dëkk bi nag mooy Sénégal dañ ci bokk gis-gis bokk gis-gis ci Tëngéej rawatina ñu bokk gis-gis ci sunu dëkk bi nga xamante ni moom mooy Colobane Guy Mouride parce que lu bari maa ngi koy jàng ci moom mi ngi may jàngal lu bari comme que man dama bari xët-xët saa su nekk mi ngi may dalal mu nekk xale boo xamante ambition ci dëkk bi te am xam-xam bi parce que ki formé boroom xam-xam la honorable Ibrahima Abou Nguet di suma papa di di di di bëggee euh, euh, Pape Kama moom ah sama la ku baax la di wax ne rek moom tamit ku am ambition ci dëkk bi la ku ñu war a jàppale la xam nga dafa am lu fi am dafa bëri maanaam politique élémentaire daf fi bëri mais politique de développement moo fi ñàkk parce que ñi ngay gis ñëpp ñu ne dañoo bëgg dëkk bi dañoo bëgg bëgg dëkk bi axe yi gën a suufe sax duñ ko laal mooy sax maanaam jéem a jàppale jigéen ñi ñu liggéey ba nga xamante ni dinañ mën a dimbali seeni doom ci njàng mi teg leen ci yoon woo xamante ni dinañ jàng-jàng bu baax ba pare problème yi fi am mooy ñun ñëpp xam nañ ne dëkk bi dafa am ay ay ngandi problème problème mu mooy lan am nañ problème mu hôpital yu baax am nañ ko am nañ problème mu école yu baax am nañ problème mu environnement yu baax te dëkk nag éducation santé environnement moo ko yor loolu nag mu doon loo xamante ne lu ñu manqué la te nag dafa am ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi fi am engagement boo xamante ni su fekkente ne yàlla dimbali na leen ñi ñu dëkkal ñi seen population ñu dooleel leen ñun am nañ ay projet yoo xamante ni mën nañ jàppale waa dëkk bi ci seeni soxla ak ci seeni jafe-jafe ñun ñëpp xam ne ne Guy Marius amul assainissement jigéen ñëpp ci mbedd yi la ñuy tuur même bu dul nawet mbedd yi dafay am ndox bopp mooy am na ci point boo xamante ni jarul sax ma si ñëwaat parce que ki jàll tout à l'heure moom presque wax na lépp moom déjà moo yi nekk ci Rufisque yëpp wax na ko man yàlla dafa dogal ni fi may nekk waxoon naa ko sàmm l'autre jour fii damay répété waat rek nee naa ko fi ma nekk sama collègue yi suñu laajee foo dëkk ma ni Tëngéej xam nga luñ may wax à chaque fois ah yéen ville bi mom pratiquement amul avancement mané ah lutax tax ngeen wax lolu ñu ni ma ñun constant bi ñu def moy yeen Tëngéej am ngeen ay borom bop dañuy lim ay personne di ñooñu ay boroomi bop lañ parce que def nañ li def fii jaar sen cursus li la mais problème moy mooy yeen li ngeen dem moy li ñu gis par exemple ay ay t-shirt ay 2000 ay 3000 ay 5000 à chaque fois ñom lool lañ may reprocher man dama naan wax sax ni man je suis apolitique ça buñ ma daan woo ci yu mel ni pour la première fois ma taxaw ci li wax pour la première fois parce que dama dina dem ba soo waxee ni je suis apolitique fi nga dëkk soo ko defarulee kan moo koy defar wala soo gisee koo xamante ni dafa motivé wu bëgg a liggéey soo ko jàppalewulee kon yow soo toogee à côté sax war a koo kaas da nga war a noppi rek man bi ma amee bac ba dem université ci laa gis loo xamante ni ñoo xamante ni dëkkuñu Rufisque mais am nañ seen i ville luñ leen di jàppalee loo xamante ni pourquoi pas waa Rufisque am loolu te waa Rufisque war nañoo mën a am loolu ak yeneen ak yeneen mais ñu liste bi validé nañ ko alhamdoulillah félicité tout le monde di félicité suñu bop di félicité ñëpp li ci dess moy di ñaax ñëpp rek parce que dëkk que ñi fa ñom ñoko mëna défar man comme li ma l'autre jour man c'est pas important nga may jox ben 1000 francs wala 5000 mieux vaut nga tégal ma fi lampe bu may dem ci boutique dans ma gis fi may jaar wala ñu bañ ma ko di sama téléphone voilà di bu baax ci wax président ñi ngi sa ginnaaw ñun def nañ recherche bu baax a baax ci yow gis nañ lu bëree bëri gis nañ fi nga jaar et tout ça voilà ñu ngi jéggi. ah koñ bi nag fi ñu dëkk man yaakaar naa maa fi jëkk yaakaar naa maa fi jëkk dëkk wala boog ku fi nekk premier may nekk deuxième waane sunu koñ bi gis ni ni mu mel. manqué nañu làmp manqué nañu assainissement lu bari manqué na ah yal na la yàlla doole nag ba nga jàpp lañu waaw yàlla na la yàlla doole sa bëgg-bëgg ba nga jàpp lañu waaye nag bàcc mi wax dëgg yàlla ñun amuñu dara na ko wax sa la faute la ñu koy wax ah, li mu bëgg nag moom itam ci yow xoolul xoolul maire bi maire bi day day day day départ rek mais xoolul bëtam dépassé na maire wallaay président toujours bëgg nga nekk. amiin mooy mooy yéeneen ndox koy wax da wax Paa Mansour mu naa mën a mag ki ma àndal billaahi mën na yor te loolu laa bëgg te loolu laa koy ñaan parce que nit lu muy yaakaar amul lu muy yaakaar ci yow te ku la gis gis sa mbokk yi sa xarit yi ma ne maa ngi lay soog tëj وأنا بقول مين تطلب نيجي نجيب نيجي نجيب خير مكانك كم كنا نقول لك خالو لك مين اللي خالو نيت نيت كي ما كل ما نك في نك تمت نور ما يقول لك واسمع يا نيب لا عمل جام كم كنا نقول لك كنا وقت في يوم لنا من أكلي سيئة بتشي ذكي بي أكلي سيئة بتشي سيئة كي نقول مين اللي نقول لك xëy na ñoo bokk ak moom ndey ak baay xam nañ ci moom it mais am na loo xamante ne yéen yéen a gën a xam ci moom parce que yéen la gën a ni muy nekk ak yéen moo ëpp léegi li muy nekk ak ñun waaw suñu mag ju baax la man moom maa ngi koy sant di ko gërëm dëgg neex yàlla di sant sama nijaay bi itam nga xam ne mënoon nañ dem bokk mais xoolul loolu bëgg na Samba fonk na ko lu sàmba bëgg bëgg na ko te lu Samba sumb mu ànd ceeg moom mënoon na ko cee bañ a fekk ndax famille bi bëri nañ torop man maa ngi nii damay petit fu ne laay dem mais saa yu ma sàmba wooy dama koy naan non xaaral xaaral c'est que parce que cest à xam na ñi may àndal fii bu baax man ki may àndal mbay sax moo yëkkati sama loxo moo yëkkati jël sama loxo teg ma ci loxoom may ànd ak moom comme moom sàmba sa sumun foofu dafa am du la fa teg waaye nag liñ naan ku boot bukki xaj baw la man a man a bu ne daa doon yow rek ndax suñu nijaay ji mënoon na dem indi duñu jox waaye dafa jàngal mënoon na nappi ñëw jox sàmba waaye da ko jox ne ko demal nga nappi su ko neexoon nag muy indi di ko jox Samba def lu ko neex waaye Samba da topp ci ginnaam mu jàngal Samba li muy def Samba dem di ko def di ko indi ñun ñu koy gis ñun man Samba sama mag ñoo bokk ndey ak baay waaye xam na fu ne laay dem fu ne laay taxaw saa yu ma wooyee ci parte ma ne ko xaaral xaaral dinaa ñëw mais dama xalaat ne jamono ju ñu toll nii nag moom sama bopp ma la gënal du bañ naa la te il est temps ma ñëw rangé wu ci ginnaawam di xool li ñuy def man ak sama morom Samba xam na ne man koñ bee ma nekk amul nit bu ma ne kaay topp ma deux heures du matin danga may topp moom xam na loolu saa yu ma ne Samba màgget kaay ma ne ko xaaral saa yu ñuy voté ji bu ñëwee foofu daf may fekk man ma toog di séddale ay ay ay añ mook jaab saa yu ñu ma gisee dama leen di nëbbatu kon nag temps fu mu nekk nii nag dafa mel ni loolu dafa fii la waroon a yem mhm. kon nag maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm bi nga xamane nag maa ngi sa gannaaw bu baax a baax a baax